jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, mbokk ñu leen di nuyu bu baax dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi mu nekk émission boo xam ne da si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h du Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Ami Collé Niang Ami Collé Niang di leader politique nekk responsable national des femmes du PRP Euh, moom la ñu invité tey PRP nag euh, mu nekk parti boo xam ne euh, président Déthié Fall moom moo moom moo ko jiite. ñoom ñu bokk ci aussi ci coalition Yewwi Askan Wi dinañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci PRP waaye nag rawatina coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne ñoom ci la ñu bokk te coow li jamono ji bëri lool picco ak mbaalo gi soxna Ami Collé ñaa Rewmi FM ñoo ngi am mbégte ci invité la seen plateau. waa sëñ Jili ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar waa réew mi FM yëpp di kontaan ci invitation bi. Euh, soxna Amy Collé Niang yow yaa jiite euh, femmes yi nga xam ne ñoo bokk ci PRP euh, yow yaa jiite femmes yooyu mais est-ce que nekk ngeen ay femmes yoo xam ne yu njaxlaf ngeen yoo xam ne yéen a ngi ci terrain politique bi. waaw sëñ Jili yaakaar naa ne bu dee njaxlaf rek ci femme PRP la fekkee baax ndax dafa doon parti boo xam ne le 28 mars bi la am un an waaye nag ñun ba ñu nekkee ci parti yàgg na ndax dafa am fu ñu jugee def fa 16 ans doog a de ber suñu daara euh, parti bi nag mu ngi nekk parti boo xam ne ba mu juddoo yàggul waaye nag femme yoo xamante ne ne femme yu jàmbaar la ñu am te fépp fu nekk ci Sénégal am nañ fa représentant boo xamante ne mu ngi fa toog. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yow yaa jiite euh, euh, femmes yooyu lan mooy seen taxawaay tey boo ma ko mënoon a wax ci élection yi nga xamante ni tey moom la ñu moom la ñu dëgmal nan ngeen koy waajalee. waaw élection yi ñu ngi koy waajal bu baax comme nañu waajalee woon local yi ñun dañoo génn ci local yi rek dëgg man élection yi waaj ko yaakaar naa sax pare nañu. bu ñu ne woon tey dañuy sëgg bëre pare nañu ñun ba ñu waajee dafa yàgg. te waaj bi moom la ñuy continuer ba 2024 ci kattanu yàlla. waaw yow ñu fàttali aussi ne conseillère nga. Euh, ci ci adjointe au maire nga ci euh, ci ci mairie bu euh, mairie bu par mairie bu Parcelles Assainies léegi Ami Collé Ndiang ñoo ngi dëgmal li nga xam ne tey moom mooy élection législative yi déjà bruit bi am ni coow li puis coog mbaaloo gi yeeyu askan wi coalition benn bokk yaakaar est-ce que jàpp nga ne élection locale dina élection législative dina am waaw élection yi dafa war a mën a am nag ndax ñoom ñoo ko yàkkamti ba tëgg ko te yaakaar naa dem nañ ba ci biir ragal jàpp leen tiitaange jàpp leen nee naa la mbàccum gerte gañ leen defoon ci local yi moom la ñu indiwaat taxaw di leen xaar te nee naa leen jigéen yu yeewi askan bi taxaw nañu takk suñuy ndigg pour jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñooy Benno Bokk Yaakaar dafa am loo xamante ne nag ci réew mi daf fiy jeex xuppe nappaate yooyu ci boppam mooy jeex ndax ñun dañoo pare taxaw ci suñuy kanam euh, leader yi. mais mais mais bu dee xuppaateeg nappaateeg wax waxu euh, fitna yéen lañ koy faral di tuumaal. ñoom bu leen neexee ñu tuumaal ñu ko waaye ñoom ñoo bi de. la seen président président bi waxoon ne ñoo yor armée ñoo yoru lépp mais ñun amuñu doole gudul yàlla ak yonente bi rek la ñu àndal amuñu doole de ñoom ñi yor doole nag ñoom ñuy xuppaate waaye nag ñun duñu daw dara te tiituñu ragaluñu élection yi Benno Bokk Yaakaar dadul bokk lan moo lan moo tax du bokk mais ay élection nan ko mën a organiser ci réew mi te Benno du ci bokk loolu euh, ndax xel nangu na ko waaw ndax ñoom dañoo takkoon rajo yi ne yeewi askan bi duñu bokk ci département Dakar donc ñoom seen liste national bi ci boppam ñoom Benno Bokk Yaakaar du bokk fenn lañu takkoon rajo yi di ko wax nañ takkaat rajo yi xam ne ñoom tamit non da dul bokk parce que ñoom ci bopp gis nga ci parrainage bi respecté ñu ko Déthié Fall leeral na lépp démb Déthié Fall def na liggéey bu xarañ boo xamante ne ne ñoom ci seen bopp démb ba ñuy def seen point de presse amuñu lu ñu wax nit ki boo amee booy wax da ngay teg ay argument yu leer teg ay preuve teguñu fa dara ba pare bu ñu leen di posé question ci loolu sax du ñu tontu nga xam ne seen fit daw tiit nañu seen njit ci boppam ragal na ñoom ci seen bopp seen wax yëpp mooy dàq élection yi waaye élection day am te bu amee ñoom du ñu bëri. Euh, mais euh, yow yaa ngi wax affaire affaire parrainage bi mais yéen léegi dafa mel ni génn ngeen euh, affaire parrainage bi nga xam ne bennoo dafa ëppale woon ba ngeen def recours conseil constitutionnel fi mu nii dangeen ngeen di ngooy ci liste Benno Bokk Yaakaar bi ci parité bi. waaw parité bi respecté wuñu ko respecté wuñu parrainage bi donc ñoom ñoom ñoom seen seen seen dossier boobu dafa chargé li ñu war a def mooy tari sóoratul dem toog. te et puis mami Macky lay doyee majorité koo xamante ne yow yaa ngi jeexal lii la fi dese matul deux ans looy doyee euh, majorité assemblée nationale moom dafa pare ci réew mi ba pare non lu muy yàggali loolu deful 12 ans defoo ko 10 ans lan ngay defaat. mais kan moo wax 2 ans ko dese mën naa def troisième mandat. troisième mandat moom xel xalaatu ko moom yaakaar naa loolu moom jaaxaan di tuur ndox moom moom da ngay tooyal sa bopp rek. troisième mandat juróom-ñaari xelu Macky Sall xalaatu ko te réew mi dañ ko ci dul bàyyi sax. mais lan mais lan moo tax kon ku wax ne Macky warut a def troisième mandat bokk si moom mu dàq la. waaw loolu moom xam naa loolu moom ñoom ci seen biir la ba pare ñamuy dàq tamit ñoom xam nañ lu tax ñu mu leen di dàq mais Macky sàll yaakaar naa moom ci boppam bu njegee naa yow loxoom boobu dina xam ne troisième mandat mi ci mim réew moom Sénégal kenn da ko du nangu wala dina dina jaar ci ay baqen yu bari doog koo nekk. Ah waaw loolu dañ ko dul nangu ñun jigéen ñi ci boppam sax xanaa ñun ñëpp la ñuy rey ñun. ndax ñu boobaa ñun ñëpp dinañ tëdd ci tali bi jëflante kook moom troisième mandat ma mënta nekk. waaw mais yow yaa ngi wax ne Benno Bokk Yaakaar waruñoo bokk ci élection yi mais démb dégg nañ euh, Aminata Touré bi nga xam ne mooy tête de liste nationale Benno Bokk Yaakaar moom nee na bëgg bëre euh, bañ bëre ngeen bàyyi seen wër-wërloo gi ngeen nekkee euh, te ñëw sëgg bëre moom moom loolu la wax moom Aminata Touré. moom dama ko yërëm moom tata Mimi tata Mimi moom dama ko yërëm ndeysaan dafa nekk mag ba pare ñu ko sonal di ko waxloo ana ñoom góor ñi góor ñi lu tax duñ jàkkaarloog seen moroomu góor ñi wax lu tax góoru Benno Bokk Yaakaar du ñu jàkkaarloo góoru Yewwi Askan bi jàkkaarloo ñoom wax ak Moussa à chaque fois ñu koy yónni man moom dama ko yërëm moo jiite liste nationale même kii xam nga nag Mimi Mimi moom wax dëgg yàlla boobu ba tey ngi wax mais moo jiite liste nationale bi kay mu moo jiite liste nationale bi mais dañ koy dañ man dama dama ko ndeysaan dama ko yërëm ndax man dama yaakaar ne oto boo xamante ne ne pono bu manqué ñu remplacé la moom noonu lañ ko fi tegee pour pour pour wodd kàddu gi Mimi Touré dama koy yërëm te ma koy wax ne nag euh, wax dëgg yàlla jigéenu Yewwi Askan bi boobu ba tey dañ na tekk moom muy wax lu ko neex mayatuñ ko benn yoon muy wax ci leader yi askan bi benn baat boo xamante ne day day déranger jigéenu yeewi askan bi taxaw nañ ci mimiture Touré bis boo waxatee ci euh, liste yeewi askan bi wala nga wax ci loo xamante ne waroo ko wax muy Déthié Fall muy muy Sonko heure boo waxatee ñoom rek jigéenu yeewi askan bi taxaw nañ jàkkaarloo ak yow ñoo lay tontu waaye dootu ak yow ak góor ñi mm-hmm. waaw. Euh, léegi ñi nga xam ne tey euh, ñooy waa coalition benn bokk yaakaar. xam nga yéen yéen a ngi wax ne. Uh-huh. Euh, Benno Bokk Yaakaar euh, respecté wul li nga xam ne tey euh, moom mooy parité bi. Uh-huh. ci seen liste ci seen liste nationale bi. ndax Déthié Fall démb nee na dafa am ñaari jigéen ñoo xam ne ci 43e position bi ak quarante e position bi uh-huh. ay jigéen ñoom ñoo fa nekk waaye yéen tim Benoît Sambou nee na am na quinze départements yoo xam ne Euh, coalition yeeyu askan wi respecté wuñ fa parrainage bi. non bu euh, respecté wuñ fa parité bi. parité bi bu nu ensemble moom day làmbatu rek ku ne xam ne gis nga nee naa wax bu dofee sax nopp yi koy dégg war a wér bu nu ensemble démb gis ngeen ne ba muy wax dafa sax jënd dër. dafa jënd dër parce que la muy wax moo yi muy génne xamu ci dara ñoom lu tax ñoom munuñu génne preuve teg ko ci table bi. waaye nga ñëw ngeen dajaloo di wax pour wax nii di wax waxu sànni yoo xamante ne teguwul amul bopp amul genn gis nga nguur guy waaj a lañu fi gis nag nguur gi waaj a daan nag bopp bu nekk la ñuy tëggee tama gi ñii dañoo war a xam ne pare nañu ñu rafetal seen ginnaaw daa dee jubóog askanu Sénégal man Benoît Sambou ak Mimi Touré li tax ma yërëm leen ñoom ñaar Sénégal sonn nañ sonn goo xam ne mosoo dégg ñu wax ci mosoo dégg ci xale yi nga xamante ne ba ñu juddoo ba tey dañoo retraité kenn liggéeyul mais ñoom lañ jiital nag force ñu wax si nag. mais mais Benoît mooy mandataire bi Aminata Touré moo jiitale. xoolal Aminata Touré ak Benoît Samb gis nga liggéey bu. cuune bi ñu def mais Sonko ngi nii mook euh, mook mook Déthié Fall waaye Yewwi tamit dañoo takk rajo yi bokkul. bokkul ñoom ñoom bu fekk ñu takk rek non non ñoom bu dee dañoo ne dañoo yor ba dañoo yor as euh, jiite askan bi yor moyen yëpp yor alalu Sénégal yëpp lu nekk ñu def ko ci ba pare liggéey bu cuune bi ñu mun koo def ñoom ñoom bañ leen dekkee réew ba tey ci muxum rek defuñu fi dara loo xamante ne lu baax la man Mimi Touré damay wax ci moom lu tax may wax ci moom mooy jigéen yi nga xamante ne ne saa bu ñuy wasin ñoo ngi loru boo génnee da Sénégal du dakaar kese boo génnee dakaar tuuti day ay poste de santé yoo xamante ne amuñu amuñu ay ay lii yu baax amuñu ay échographie amuñu dara moom Mimi du ci wax démb démb rek ci nii rek sànq maa ngi koy déglu jigéen bi nga xamante ne moom la ñu rey rey ko rey bu ñaaw boo xamante ne ne mu ëmb ba am juróomi weer ñu jam ko ci biir rey ko ñoom li tax du ñu wax ci yooyu mais saay bu yeewi askan bi taxawee rek ñoom ñu génn takk rajo yi. dañoo dem ba soof askan bi. mais dañuy politique mais yeewi coalition yeewi askan coalition la boo xam ne. Euh, dafa bëgg day dem ci élection yi coalition benn bokk yaakaar moom tamit di politique léegi bu ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall génnee wax dañuy politique ñoom tamit il faut que ñu def seen communication bataille d'opinion bi. Mimi Touré ci boppam campagne yi du dul campagne du ci bokk même bu ci bokkoon doo du moom ak ñoom Sonko moom ak ñun ñii la. déedéet waaw waaw moom ak Sonko la déedéet moom moo nekk tête de ñooy def suñuy musóor def suñuy tagal jàkkaarloo ak moom mu wan ko ne yeewi askan bi ay jigéen la fi ne waxuma ay góor de ay jigéen yu saf jigéen yoo xam ne dañuy jàkkaarloo ak moom su ma dégg soo leen déggee man leen yu saf jigéen nag bu ñu jàkkaarloo Mimi Touré di xam jigéen yu saf jigéen ñoo nekk yeewi askan bi ñoo xamante ne bu ñu jàkkaarloog Mimi Touré dinañ ko wax boppam moom dootul mook sonk dootul mook Déthié Fall dootul mook Khalifa Sall ñun ak moom la te dawuñu ci dara benn heure bu génn génnatee ñun jigéen ñi ñoo koy tontu waaye dootul góor ñi ñooy wax ak moom mais yéen est-ce que jàpp ngeen ne nag euh, Ami Collé Niang est-ce que yéen jàpp ngeen ne euh, Benno Bokk Yaakaar dinañ fi organiser élection yoo xam ne par par exemple tey euh, ñun ni ñu yàggee gis Macky Sall mm-hmm. muy jalgati ay loi wala muy jaay doole ci réew mi Euh, est-ce que Macky Sall moomu yéen jàpp ngeen ne dina organiser ay élections législatives yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar si bokk loolu est-ce que yéen seen xel ma koy xalaat benn seconde. Macky Sall nag fii la waroon raggee ginnaawam Macky Sall fii la waroon jàkkaarloog askan bi Macky Sall fii la yoonu génnam bu rafet waroon jaar mooy gis na list euh, nationale am bi nu ñu def respecté wu ñu parité. respecté wuñu parenage donc moom war na xam ne carrément du bokk ci élection yi mu ne leen eh dem leen toog Macky Sall ci boppam ay njabootam la waroon wax ne que liggéey bu bon ngeen def dem leen toog bu boobaa askan bi nawaat ko mu am tuuti bëgg-bëgg ci askan bi ndax wax dëgg yàlla nag bennoo bu ñu waxantee dëgg génn nañ ci xoolu askanu Sénégal man mii wax ak yow damay wat ci terrain bi bokkuma ak ñoom ñi di toog ci seen oto xamuñu li xew ci dëkk bi damay dem ay tour damay dem ay ngénte damay dem ay dëj di di di xool li askan bi métit bi askan bi nekkee moom soxna eh, njiitu réew mi xaw ma service la Sénégal xaw ma servi la Sénégal démb maa ngi koy gis mu naan liñ ko envoyé ci ay demande dafa bëri moom foofu la waroon woo jëkkër ba mu ñëw mu ne ko askanu Sénégal sonn nañ war nañ def bu bu élection di jub si ñu def seen i barigo ay pepp ba mu fees di ko wis askanu Sénégal waaye nag dañoo màgg askanu Sénégal dañoo màgg te kenn dootul leen taq buumu njàmm mbir mi moo jeex takk xaalis bi ngeen di jël di leen ko sànni dinañ ko jël waaye duñ leen voté yi dara pare ngeen ci réew mi da ngeen jeexal takk ngeen abal ñu ci jàmm ak salaam ñii nag dañuy xale yeeyu askan bi nag dañuy ay xale yu ndaw yu bëgg seen réew yoo xam ne jaay yu ñu dara tubaab yi ñu seen bopp tubaab bi war a toog fii ci Sénégal nag pour liggéeyal seen réew ñun nag. waaw mais mais yéen euh, Aminata Touré nee na yéen da ngeen di lëndëmal xelu askan maanaam si wàllum manipulation ngeen nekk yéen waa euh, yeeyu askan wi. yeeyu askan bi nag wax dëgg yàlla dañoo jege askan bi ba nga xamante ne. askan bi bu nekkee ci bànneex ñu ànd ak moom bu nekkee ci naqar ànd ak moom rawatina naqar bi nga xamante ne pendant 12 ans moom la ñuy dund moom Aminata Touré kañ lañ koy gis Aminata Touré ci kañ lay wax moom daal heure bu intérêt taxawee lay wax ci askan bi kon ñoom xam nañ ne askan bi. ñu ngi mu ngi mu ngi am mais ab coalition ko jiital. non coalition bi ko jiital saan dañ ko man dama yërëm kii dama ko yërëm ndaw si dama ko yërëm. ay njabootam dañ ko war a wax ne que mu toog parce que Aminata Touré lii ñu koy defloo nii di ko utal ay noonu loolu moo dul dëgg du yoon. mais dina campagne dem. campagne te moo yem plateau Aminata Touré dama koy laaj moom Gossas la dëkk wala Thiès wala wala wala Kaolack la dëkk wala Grand Yoff la dëkk fan la dëkk Aminata Touré kenn xamul fii baasam Aminata Touré kenn xamul fan lay taxaw ba pare ba ko Macky Sall di fal ba léegi Aminata Touré mosut a gagné dara Aminata Touré mosu ñoo dut baaraam ne lii Aminata Touré ko fi def. d'accord mais yéen itam euh, Ami Collé Niang euh, yow yaa jiite euh, femmes yi bokk ci PRP bu dee ca fal mais yéen itam coalition Yewwi Askan Wi mais am ngeen yéen lu leen doy sëkk. frustration bi ma ngi mel ni tulleeg màlle ci leader yi. waaw leader yi loolu moom mënta ñàkk wax dëgg yàlla parce que nag euh, séddale moo mel noonu séddale moom wax dëgg yàlla dina am ñii dinañ am ñii du ñu am may woo sama tonton yooyu nga xamante ne ne ñoom dañoo xaw a mer xaw a mer sax laa koy tuddee ndax ñoom génnuñu yeewi askan bi ba tey ñu ngi ci biir yeewi askan bi ñoom dañoo gëm liggéeyu yeewi askan bi nit ñi nag ñoo yor seen jaxase di jaxase rek ma leen di ñaan ñoom ñëpp nañ nekkaat ci liggéey bi ndax ñun ñoom la ñu yaakaar te it ñoom la ñu bëgg ñu yor réew mi comme nag ñoom la ñu yaakaar ñoom la ñu bëgg ñu yor réew mi yaakaar naa ne benn euh, métit métit war ca am mais est-ce que yow xam nga ne yeewu askan bii gars yi ci seen bopp mën nañoo mer de mais ñoo ngi waxtaan ñoo ngi déggoo waaye ñële nañ génne seen liste ñoom ñoom de bu ñu génnee seen liste Sénégal toj seen liste nag ba tey lu tax ñoom ñu ragal koo génne nañ ko génne waaw loolu rek laa ci wax nañ génne seen liste ñoom lan moo leen di euh, lan mooy seen ñoom boobu ba tey liste bi ñu ko génne na xam nañ ne bu ñu génnee seen liste yi ñu ca def dina am ñoo xam ne dinañ taxaw génn ànd ak opposition bi mais yéen da ngeen a seen cas ba rek ñun suñu kaa méttiwul suñu cas méttiwul parce que ña nga xamante ne day dañ leen tuddee ne dañoo mer ñooñu ay kilifa lañ ay góor yàlla lañ te dañoo gëm yeewi askan gëw ma ne ñooñu dañoo mer dañoo gédd wala dañoo bàyyi nit nag lu du ñàkk nag nga nekk fenn am lu la neexul nga ko mais est que seen investiture yi euh, ak jaay doole amu ci jaay doole ci comme nan. jaay doole am leader yoo xam ne euh, dañu jël seeni nit fexe ba ñu bañu ñu ba ñu bokk est que amul ab laaj la. waaw man nag wax dëgg yàlla foofu. Euh, wala est-ce que am na xam nga nit bu fekkee dañoo jiital xalifa Sall. am yéene ci moom am yaakaar ci moom jox ko lépp muy nit ku baax nit ku set ñu ne ko tànnal defaral yaakaar naa ne moom bu defaree. man tey awma sax tuuti naa pour taxaw fii naan na mu tànnee baaxul na mu defar ndax man fekkewu ma ko ba muy tànn sama leader nekkul ca foofu ba muy tànn kon nag xalifa sàll moom moo ko defee ni mu ko defee dañuy ànd ak moom ci liggéey bi rek waaw mais est-ce que tey par exemple tey ak frustration bi am ci euh, coalition Yewwi Askan bi ndax sànq sax yaa ngi wax élection locale yi da ngeen a gagné woon Benno Bokk Yaakaar te pourtant euh, président Macky moom nee nañ ñoom ñoo gagné mais yéen tey engouement bi mu amoon maanaam bës bi Yewwi Askan Wi amoon ci élection locale yi est-ce tey man ngeen am euh, taxawaay bi mel noonu ci élection législative yi bu ñu gisee ne frustration am na seen biir rawatina tamit njuum tey ñu ne ñu ne ñu ne respecté wu leen yéen parité bi parité bi ci ci ci liste départementale bu Dakar. man xam nga man lan laa gëmoon li li Déthié Fall wax rek laa gëm respecté wu parité bi ci list département bu Dakar Déthié dégg ngeen mu leen ci wax. Mhm. respecté nañ ko parce que respecté nañ ko parce que Déthié nee na leen liste bi nga xam ne moom la déposé du liste bi nga xamante ne moom la ñu génne man nag wax jooju du ma ci mun a sori. comme Déthié leeral na te askanu Sénégal yëpp gis nañ Déthié Fall leeral bi mu leeral kon moom foofu laa yem du ma ci mun a sori ci loolu voilà mais est-ce tey euh, ak frustration bi ne leen ni Sénégalais yi jàppee woon ci élection locale yi est-ce que jàpp ngeen ne loolu dina am ci euh, euh, législative yi tey la gën a raw askan bi taqu nañ taxaw ci ginnaaw yeewi askan bi askan bi ñun ci suñu bopp à chaque fois da ngay taxaw sax ñu naan ñoom ñooy daw vers ñun parrainage ba mu ñëwee ñoo doon daw si di ñëw ci suñuy kër ne suñu carte d'identité yaa ngi nii askan bi dañoo suur dañoo suur Macky sàll pare nañ ci Macky sàll pare nañ ci ay waa këram yeewu askan bi nag bañ bañ bëgg yàllaa leen fi teg ñuy ay xale yoo xam ne seen loxo dafa set toppeewuñu leen dara waaw ah. mais est pour dem ci législative yi. dama ne bu doon tey tey tey pare nañ pare nañ ñun ba ñu paree dafa yàgg ñun ba paree dafa dafa yàgg yeewu askan bi ay ay fa la fi nekk nag takku liggéey rek lañ gëm. te pare nañ bu yàgg nee naa la bu doon tey tey pare nañ gis nga dama lay wax ci local yi Parcelles Assainies ñaata borom doole fa nekkoon ñu bokk Yewwi Askan euh, ñu bokk Benno Bokk Yaakaar ñaata ñun ñu dem ak cotisation askan bi ñoo doon ñëw di ñu dab naan ñu jox seen alal parce que lan Parcelles Assainies ñu dóor leen fa ba ñuy bëgg a dee yooyu ñu leen dóor dóor yooyu lañ leen di dóoraat lu ko raw nee la mbàccum gerte gaa ngi fi di leen xaaraat duñ leen may dara. waaw Benno Bokk Yaakaar duñ leen may dara. as yaakaar lañ fi ah, nekkee yéen ne ngeen ñoom waruñoo dem élection xoolal dama la ne xam nga ñoom forcé rek la ñu mën mais nag bii moom gisuma ban fu ñuy jaar moom bërët bu ngeen leen ñemee kay euh, bàyyi leen rek ñëpp sëgg bëre xam nga démb ndey ndeysaan sama tataami mi nee na sëgg bëre bañ bëre dafa maa neex nag nga mus forme musóoram boobu fëgg bëre bañ bëre moom dadul bëre bay sëgg moom Mimi Touré da dul bëre bay sëgg. mais sànq yaa ngi wax soo ba tey say kàddu que ne euh, askan bi euh, askan bi dañoo sonn mais yow loolu ngay wax ak li njiitu réew mi wax wala ñu ànd ak Macky Sall wuute na ak loolu ndax ñoom fan yu jàll rek am nay milliards yoo xam ne génn woon nañ ko euh, génne woon nañ ko séddale ko askan wi ñoom tamit nee nañu teg nañu ay structures yoo xam ne financé nañ ndaw ñu bëri ak jigéen ñu bëri li nga wax ne ndaw ñi dañoo sonn moom gisewu ko noonu. man de yaakaar naa xam naa seen biir la yem ak seen i ndax man doxaguma ba taseeg nit mu ne ma euh, bokk naa ci ñu ñu financé wala bokk naa ci mooy yooyu mu doon yónnee 80 millions ndax gis na ko ci téléphone am doxuma ba dégg loolu ah te nag ya waaw kenn kon xaalis boobu nañu wax ñan ak ñan lañ ko jox ak fu ñu ko dugal gis nga réew mi bu ñu nax kenn nit ñi li ñuy dund xam nañ ko dund gi cher na cher goo xamante ni jigéen ñi sonn nañ ci dem marché bi booy dem marché da ngay taxaw di doxee ndànk di xalaat jigéen ñi moom ñëpp bi jaaw nañu ndax xalaat bu metti góor ñi ñu ngi def lu ñu mën mais Sénégal moo doxul nañ ko wax te dee réew mi doxul puusul paasul ñoom nag bu leen neexee ñu yëg ne di réew mi neex na seeni doom ñu fi seeni jabar heure bu nekk ñoo ngi jaabante fu leen neex di def li leen neex di takk li leen neex seeni compte fees dell doomu baadoole yi nga xamante ne ne man askanu Sénégal lay wax nañu yeewu yére yi ñu leen di jox ak 2000 li ñu leen di jox naan leen ñëw leen tàccu ngeen tàccu bay bëgg dee boo leen delloo seen kër yi doo leen lekk doo leen naan alal yëpp ñu yemale ko ci seen biir bañ leen loolu li des ci nguuru Macky Sall bii dara warta yomb Macky Sall kenn du ko may dara mook ñoom Mimi Touré gàngoor gi mu àndal yeewu askan bi mooy list bu baax bi bopp fas bi moom nañ ko teg nale man daal loolu laay wax. mais sànq yaa ngi wax euh, marché bi euh, njëg yi dafa cher ak yu mel noonu loolu euh, ñun ñëpp nemmeeku nañ ko waaye ñoom nee nañu coronavirus bi la ak guerre bi am Russie ak Ukraine. waaye nañ arrêté dama la bëgg wax ne que man personnellement Macky Sall ba mu toogee tëj naa ñaari boutique ndax Sénégal ñi doon jënd ñëpp léegi dañuy jaay. te bu fekkee ñiy jënd léegi dañuy jaay amatul kuy jënd kon nga xam ne réew mi metti na ñoom ñoo la gën a xam ne réew mi metti na ndax seeni téléphone bañ nañ ko ba toog naa ak benn kilifa boo xam ne ku ko jege la moom période tabaski téléphone am di toj mu ne ma xoola Ami Collé réew mi nu mu méttee ma ne ko waa réew mi nu mu méttee yi mais yéen la de yéen a nekk ci réew mi jël xaalis bi xaw ma ban réew ngeen ko denc foo leen ko rënk parce que man ba pare yërëm ko yërëm ko weesuwul amatul ku ko waxal. Macky Sall amatul kenn ku défendre nee na bilan bi mu am man bilan sax dama ko gisul mais amatul kenn koo xam ne dina toog ci benn télé naan da ngay défendre Macky ku ndaw kooku daan ko daan ko défendre te mu dëkk Thiès moom bañ ko dóoree Thiès la noppi muy Abdou Mbow amatul kenn ku waxal Macky Sall kon nga xamante ne ne réew moo xam ne ñi nga defar ci ay nit ñu am ay milliards te yow kenn du toog di la défendre war nga seetaat sa bopp. entourage bi baaxul wala. kan moo koy liggéeyal ban ban ministre am nga gis ne liggéey na def na fi lii kan. mais yow sànq yaa ngi wax ne euh, Macky Sall mais tey Macky Sall ak ñi mu àndal yaa ngi dégg ñu ne la BRT bi euh, ak ak ak li nga xam ne tey euh, moom mooy TER bi train express régional bi gis nga fi nee na ñoom defar nañ fi ay hôpitaux defar nañ fi ay stade ñoom nee nañu ñoom def nañu ay ay ay réalisation loolu est-ce que aussi mënoo ko nangu. TER kenn du ko lekk stade dañuy football génne tëj ko. mais stade mënut a ñàkk. stade mënut a ñàkk mais teer laa la wax ak stade kenn du ko lekk. nit ñi balaa ñëw seen. balaa ñoo tal mais dañ koy jëfandikoo xoolal boo xam ne boo ca footballee tëj nga ko 6 mois doog ko ubbiwaat ana askan bay dugg ci estade boobu ci ci euh, période boobu ñoom dinañ lekk wala dinañ naan gis nga jiile nañ waxante dëgg njiitu réew mi bu dee ñi mu àndal dañ koy nax moom na xam ne askanu Sénégal sonn nañu. fi euh, Abdou Diouf tolloon waxuma la Ablaye Wade ndax moom dañ koy gërëm di ko sant moom bu ñu yëgoon ba ko fi moom mais fi Abdou juuf tolloon nan ndax musul xam ne café juróom am na. meew fukki dërëm am na Macky Sall jamono jooju foofu la tool ñu koy wax ne ko njiitu réew nga mhm. dañ la fi tegoon ngir wóolu la suñu yaakaar dafa tas ci yow askanu Sénégal seen yaakaar tas na ci Macky Sall nit ñi lekkatuñu bu ñu bëgg bu ñu euh, feebaree mënuñoo faju Macky Sall doomu aadama yi. sonn nañ yéen xew ba tey de yéen jigéen ñi. xam nga jigéen ñi bu ñu xewul woon dee. seen fukki dërëm yeeg seen juróom yooyu ñuy dajale dem fa au moins ñuy ree seen xol di neex bu dul woon loolu dee na ñaata sa yëfi tas jamono juñ toll nii. lu ko tas stress. stress moo ko tas sa jëkkër yorul lu mu la jox lekk gi fu mu toll nii kër goo gis léegi benn añ rek moo fay tegee guddi gi ku nekk dem la rangi fonde fonde na ñoo fonde bay bëgg a dee nit ñi sonn nañu euh, ji li man. su may wax sax damay damay damay dootuma sax xam lu may wax ndax doomu aadama yi coono gi ñu sonn bu dee ñoom nee nit ñi sonnuñu ma xamante ne nag ñoom mënuñoo sonn ndax alal geeg ci seen i loxo. ñoom mënuñoo sonn ndax seen doom yi bu ñu feebaree du ñu fajoo Sénégal moo tax dafa am geen benn chasse femme moo doon waxtaanal mu ne ma Ami Collé 20000 lañ may fay. pardon. chaque fin du mois 20000 lañ koy fay 20000 boobu ñu koy fay nee na ma bëgg si dundal sama njaboot te damay fanaan ci ci ci ci poste de santé yi dama ciy fanaan ba suba. mais dañ koo jël di ko fay vingt mille francs man kay lu ah, leer laa lay wax nii am ñoo nga xamante ne ñu ne ma ay quarante mille lañu leen di fay mais lu tax loolu dafa am loo xam ne dafa am ay euh, donc man adjointe au maire la Parcelles Assainies ñu dénk ma santé ma chapeauté santé dama dama wër def visite mam Abdou poste euh, noraat wër mam Abdou boo fa duggee euh, seen seen seen salle d'accouchement bi weñ yu xuur yu ñuul yoo xamante ne chaise bu ñu toog sax amuñu ko. bassin bi ñuy tegal jigéen bi buy mucc ci ay paan lañ koy dugal loolu rek mën nga ci jëlee feebar léegi bu boobu ana ministre bi nga xam ne moo yore santé jërëjëf euh, Ami Collé euh, Nia yow nga bokk ci euh, coalition Yewwi Askan Wi nga nekk adjointe au maire Parcelles Assainies fan yi danañ waat ci coalition Yewwi Askan Wi ak élection législative yi fan yi dafa am ay rapport yoo xam ne nag daf koo génne ñu joxar bi si baaraamu tuuma ay kilifa yu baree baree bari ak bànqaas yu baree bari mais li war a laaj bi mooy rapport yi nag di génne léeg-léeg bu jamee tuuma baaraamu tuuma ñi ànd ak nguur gi Euh, dara du leen ci fekk du ñu ubbi enquête loolu euh, kon lan mooy njariñu corps de yooyu. waaw of nag moom wax dëgg yàlla euh, yaakaar naa am na benn côté boo xam ne def nañu fa seen liggéey waaye of nag lu ñu def def def seen liggéey te borom conc bi ne fi nan la mbir bi di sottee. borom conc mooy. mooy président Macky Sall ndax moom bu taxawee ne dafa am yenn dossiers yoo xam ne maa ci teg sama conc ñoom lu ñu liggéey liggéey liggéey bu ñu demee jox ko ko mu tegaat conc ndax lépp ci ay njabootam lañ. kon of nag liggéey bi muy liggéey sax man à dama naan lii jaru ko. jaru ko waaw. mais dossier yi euh, mais enquête bi peut ma ngi fi peut-être keneen beneen nguur mën na ñëw. enquête bi moom day continuer te beneen nguur bu ñëwee gis nga yeewu askan bi bis bu ñu toogee lépp dina leer gis nga ñi takk rajo yi di wax fu mu toll nii euh, genre géwélu Macky sàll boobu noonu seen wax yi ñuy wax mais gis nga bu yeewu askan bi toogee. non yeewu fan lay toog. yeewu dinañ nekk dinañ toog 2024. doomu yeewi askan bii góor yàlla yi nga xam ne ñoo fi ne kenn dina toog mais est-ce que di ngeen du ngeen tas ndax boobaa ambition yi day wute lu ñu tas tas tas danañ dinañ toogaat ndax ku ci génn deuxième tour dinañ la jàppale yeewi tour bi mun nañ ne yeewi ñii dem nañ ñi ni dem nañ ñi mais duñu réeroo ci dara cerek soow la dara mënu leen a tàqale ñii ànd nii boobu ba tey ñu ngi leen di jaxase di envoyé ay message di def li leen saf mais yeewi kenn mënu leen a jaxase xale yi dañoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal dong ñor leen seen poche ñorul leen doomu aadama yi sénégalais yi ñoo leen ñor te ñoom la ñuy liggéeyal ma xam ne 2024 li ci des moom deetul nee naa la lii nii dañuy liggéey nii pour député yi rek mais ñun suñu bët mu ngi ci kanam ci kanam la suñu bët nekk te ñoo ngi liggéey pour 2024 incha allah bu ko yàlla dogalee Macky nag li ma koy wax leen rek la muy président Macky Sall rafetalal sa ginnaaw sa demin na rafet génnal génn bu rafet bu kenn jay nan la mën nga ko defaat mën nga ko defaat. boo ko defee da ngay nax sa bopp ndax askanu Sénégal duñ la ci bàyyi. mais du ngeen bàyyi conseil constitutionnel rek euh, wax. waaye ñoom xam nga nag bu fekkee ne rek euh, dañ la dénk te askan ba nga xamante ne ñu ngi xippi seen bët di la xool di am xel ñaar boobu moom yaakaar naa moom mm, gëw ma gëw ma foofu moom ñu am fa euh, confiance 100 pour cent waaye nag dinañ leen bàyyi ci lii nga xamante ne ne moom la listu Benno Bokk Yaakaar def foofu la ñuy xoolee conseil constitutionnel ndax ñoom dinañ dinañ valider liste euh, bu bu Benno Bokk Yaakaar ba pare dinañ valider liste Yewwi Askan bi ñoom daal ci liggéey boobu lañ leen di xaar ndax dinañ fa def liggéey boo xam ne adduna bi yëpp dinañ ci teg seen bët. léegi suñ valider liste ñaari liste yëpp la. su waruñu valider ñaari liste yëpp liste Yewwi Askan bi la ñu woo a valider ñële woo bokkuñu élection du ñu bokk. ñoom na xëy na li ñu bëgg fu mu toll nii mooy élection bañ a am mais tamit li euh, ñan ñoo am. waa waa Benno bëgguñu élection am ndax nag boo defee say say say njaaxum sa liste national benn waru cee dem yow doo bëgg élection am waaye dama ne élection day am moom Mimi na ma joxaat baat bi mu wax démb ndax moom moomu ko sëgg bëre bañ bëre waaye ñoom dañ dul bëre. ñoom ñoom Benno ñoom dañu ñu ragal nag Benno nag ñoom dañu ñu ragal guddi yi ñoom nelawatuñu. d'accord mais yéen itam euh, nan la leen ay magu jëmm mhm. euh, njuumte euh, respecté parité di leen dal ci liste Dakar bi aussi. ñoo respecté nañ parité bi. respecté nañ parité bi liste ba Déthié déposé ak liste ba ñu wone moo dul bokk mais respecté nañ parité mais ñoom ñoo respecté wul parité bi ñoom respecté wuñu parité respecté wuñu parrainage ñoom daal lii Sonko naan leen bàyyi bàyyi bu ñu forcé nag jàll forcé mënu fay am parce que réew mi ñëpp seen gët yëpp a ngi ci si ñoom ñu ngi jàkkaarloog ñoom di leen xaar tey di du lépp dina leer wala suba na nga leen déglu lépp dina leer dinañ leen déglu yow fii jiili noonu dëkk bi commencé na euh, neex mais yéen euh, mais mais nañ fexe ba fitna du am rek bañ a jógee ci euh, kenn. bu ñu bañee fitna am nañ teg lépp ci yoon. teg lépp ci yoon mooy la noo tudd lépp ci yoon mooy liste Benno Bokk Yaakaar du bokk ci élection yi waaw. liste Benno Bokk Yaakaar du bokk ci élection yi bu ñu bëggee lépp jaar yoon du bokk ci élection yi léegi nag li ñu bëgg ñoom te di ko def seen xel mooy ñëpp demandoo bokk élection ngir ñu nëbb seen tâche boobu mënta ne ñoom duñu dem ñoom duñu bëre. d' accord léegi yéen euh, coalition yeewu askan wi euh, da dem ba dernier moment ngeen ànd ak coalition wàllu wàllu Sénégal est ce que du euh, loolu tamit stratégie la boo xam ne tii ndax frustration bi aussi am na ci beneen bi leader yi amuñu woon temps pour rendre compte aussi ñi si bâche bi est ce que jàppoon nga ne ñaari coalition stratégie bi ñu teg est ce que jàpp nga ne stratégie bu baax la. man jàpp naa ne lu baax la ndax nit ku ci nekk booy liggéey da ngay yaatal te comme waa Wallu tamit Sénégal moo leen tax a jóg waa Yewwi Askan Wi Sénégal tax leen jóg. kenn intérêt personnel taxulaa jóg war nañoo bokk ànd liggéey man nag ci diir bu gàtt bi ni ko ñëpp yëgee noonu laa ko yëgee waaye nag comme àndandoo pour askan bi tax leen a jóg war nañoo mën a ànd loolu lu ñaaw moom gisuma ko fa war nañoo mën a ànd mais yéen mais yéen bu ngeen gagné woon assemblée nationale nii tey euh, cohabitation bi euh, baa du ngeen andi pëccëxoo ci réew mi dara du am lépp dañ koy toog waxtaanee ko pëccëxoo du am réerandoo du am lépp dañ koy toog waxtaanee ko ndax Macky Sall moom wax dëgg yàlla moom demul. mais mais tey par exemple tey euh, Cheikh Bamba Dièye euh, Moustapha Guirassy ay maître mussa Diop ñoo ñu def conférence de presse tey songo ay Khalifa Sall ak euh, Ousmane Sonko ak sëñ Mansour Sy Djamil ñooñu tamit ay ay ay leader lañ bien vrai am na ñuy wax ne amuñu benn poids politique bi mais ñooñu bu ñu baatul campagne ak Yewwi est-ce que jàppoo dina du Yewwi du du du du du ñàkk doole aussi. non man sëñ Mansour Sy Djamil rek laa ciy jukki pour wax ci ñoom sëñ bi dañ ko naw. xelam sell kon nekk na loo xamante ne yaakaar naa euh, réeroo boobu amoon jeex na man pour man réeroo boobu amoon jeex na ndax gars yi déggan déggoonte nañu te dinañu waxtaan ba nga xamante ne loolu parce que nee naa la réeroo mënta ñàkk mérite mënta ñàkk nit sax di nga nekk sa kër booy séddale say doom ñii mun nañoo am ñee bañ a am donc ñoom ci seen bopp man li may wax rek di sama nijaay yooyu maa ngi leen di ñaan di leen tàllal loxo ñoom ñun amuñu ñu dul ñoom yeewi amul ñu dul ñoom askanu Sénégal amul ñu lu dul ñoom te bu fekkee ne Sénégal moo leen tax a jóg askanu Sénégal moo leen tax a jóg poste warut a tax ñuy mer wala ñuy gedd te yaakaar naa ñoom loolu dalu leen. mais am nañu si mer. mer moom mënut a ñàkk mais mer bi giif na man yaakaar naa ne mer bi giif na. est-ce que nekkul leen leen tamit euh, euh, di leen di jéem a baab. ñan ñooy baabaate. yéen ak yéen waa yeewi di bàpp euh, ñi frustré ñoom ñu yeewi ñoom yeewi la ñu bokk waaw ñoo ngi yeewi mais dañoo frustré non baabuñu kenn parce que boo leen gisee dégg ngeen président Ousmane Sonko nu mu nu mu waxee xamal na leen ne ba ci dàmbooj sax yaakaaroon na ne mu ngi ci liste bi pour te dire kon ñoom xamuñu woonu sax liste bi nan lañ ko tëggee kon yaakaar naa ne ñun dañ leen di tàllal loxo rek di leen wax ne ñun askanu Sénégal suñu gët yëpp ñu ngi ci ñoom te yaakaar naa ñoom ñu ànd bokk ci yeewi askan bi loolu mooy suñu intérêt ñun ñëpp jërëjëf euh, Amy Collé Niang yow euh, nga bokk ci coalition Yewwi Askan Wi yow yaa jiite jigéen ñi bokk ci euh, parti bi di PRP nga nekk adjointe au maire Euh, parcelle Assainies yow lañu invité ci sunu émission pencum réew mi euh, ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu 15h jotee euh, jàpp jàpp 16h fan yi ami gis nga lu jëm ci peut-être dinañ dikkaat ci seen liste boobu waaye lu jëm ci insécurité bi nga xamante ni am na ndax démb rek ñoo ngi dégg benn femme bu ñu rey fi nga xam ne tey moom mooy mooy Pikine fan yëpp ñu dégg agression boobu yow en tant que yaay lan moo ci sa xalaat. waaw man dama tiit. jamono jii xam nga lu ñu dal Sénégal da ngay dox di gestu jigéen ñi nangootuñu takk sax luy xonk ci seen i baat nangootuñu téye saak kuy génn téléphone bu ndaw ngay jël jël sa téléphone te sànni ko kër ga jël bu ndaw boo xamante ne nga ne lii bu ñu ko këfee garaawul dañoo toll ci réew moo xamante ne booy lekk dangay tiit booy dox da ngay tiit booy naan da ngay tiit. li waral loolu mooy. gis nañ ñi ak ni ñuy agressé nit ñi gis nañ ni ñuy reyee jigéen ñi xoolal ma ku ëmb ba am juróomi weer nga fekk ko bërëb ba muy liggéeyee jam ko ci biir mu dee mais loolu lu tax ñoom duñ ci wax waa Benno Bokk Yaakaar lu tax duñ ci wax te nga xam ne askan bi ñoom la ñu dénk réew mi. ñoom daal taal bu as bu bu yeeyu askan bi génnee ñu takk rajo yi mais bu ñuy rey as bu ñuy rey askan bi di noot askan bi ñoom duñ ci wax ñoom nañu xam ne pare nañ ci réew mi de. mais euh, euh, lu jëm ci li nga xamante ni tamit moo jëm ci wàllum wér gu yaram fan yi ñu génn déggoon nañ fi euh, ay sages-femmes yoo xam ne dañu doon dañ doon grève jigéen ñu bari tamit ak sénégalais yu bari dañuy wax ne sages-femmes yi boo leen fekkee ci bërëbu fajukaay ci maternité yi dañuy ñàkk yërmaande léeg-léeg léeg-léeg sax ñu yëkkati kàddu goo xam ne guddis lay doon tekk si ñi nga xam ne dañoo war a mujj yow lan moo ci sa en tant que femme. man sage-femme yi dinaa leen défendre ci benn côté gis nga jiili nit du nekk këram bàyyil njabootam ñëw ci bërëb ba muy liggéeyee di téem ay téeméeri jigéen daw ci fii di daw ci biir te mu mu leer ko ne bu weer bu deewee du am sax lu mu yóbbu këram lu dul ay fukki junni ay trente 000 ak 15 000 francs chasse femme yi nañ leen jox seen gëdd sauver bakken yombul nañu jox chasse femme yi seen gëdd delloo leen la nga xamante ne ñoom la ñu moom beneen bi mooy ñoom ci boppam ñoom tamit chasse femme ci boppam bu nit ñëwatee bëgg mucc nañ ko teg ci condition yu baax mm-hmm. waaye man lu tax yéen à chaque fois ñuy wax chasse yi ministre bi nga xamante ne ñoom moom lañu ñu dénk santé. moom lu tax moom du ñu wax ak moom. milliards yi nga xamante ne moom la yor syndicaliste yaa ngi ak moom. mais milliards yi nga xamante ne moom la yor lu tax moom du wàcc ndax maa ngi ko doon dégg Pape Djibril Fall di wax ak moom di ko wax ne que am na kuy fayeeku ay 20 000 15 mu ne moom loolu amul. moom lu tax muy weddi loolu te loolu am na na wàcc dafa waroon wax Pape Djibril loolu fan la nañ arrêté dañ leen dénk te dañoo tële mënuñu ku mënul nag da ngay bax foofu lañ toll nii ak ñoom. mais sénégalais yi ñu ñoo ñoo ñoo leen ñoo leen ñoo leen wóolu te ba pare élection yi fi jaar aussi ñoom nee nañ ñoo koy gagné kon ba léegi ñoom jàpp nañu ñoom dañoo am kóolute sénégalais yi gis nga gagné boo xamante ne yow booy génn da ngay fay pour ñu tàccu la gagné boo xamante ne ne booy génn da fay pour duy say kaar kon kooku ñoom dañoo war a xam ne kon perte nañ jeexal nañ bu ñu gagné woon gagnétuñu dara amatuñ dara ñii dañoo nee naa la amatuñ dara ba ñuy wàcce ab day wadd di yéegal Macky Sall yaakaaroo taxoon ñu teg ko fi ne ndaw la xam na li Sénégalais yi di dund ndax moom jaar na ci di luwe ku jaar ci luwe jaar ci jaar ci métit métit kon kooku bu dañu yaakaaroon ne bu yéegee moom war na gëstu askan bi waaye nga yéeg gëstuwoo askan bi sa lépp tubaab yi la boo waree wax sax ci journaliste te tubaab yi nga jëm wax xeeb sa journaliste yi journaliste yi nga xam te ne ñoo nekk sa réew ñun kooku daf ñoo doyatu kooku dañoo pare ci moom d' accord léegi ñoo ngi waajal ay élections législatives weer yi ñu génne déggoon nañ euh, collectif sàmm jikko yi yóbboon benn proposition de loi assemblée nationale ngir ñu criminaliser borom ñaari tur yi euh, député yi bokk ci benn bokk yaakaar euh, gàntaloon ko yow lan moo ci sa xalaat ak tey bu ngeen demoon ba am majorité assemblée. bu ñu demoon ba am majorité assemblée te incha allah rabi dinañ ko am mais loolu dañ koy valider ñun parce que yaakaar naa ne nag fii dëkk gi Serigne Touba tëdd El Hadj Malick tëdd Baye kilifa yu baax yëpp ne fii. yow nga nekk góor na yow bëggumaa nekk góor jigéen lay doon waa loolu lan lay nduru ñoom ña nga xamante ne assemblée dañoo dugaloon pour ñu valider euh, euh, euh, pour pour ñu valider ko ñoom ñu bañ koo valider donc waa askanu Sénégal teg nañ ci seen bët askanu Sénégal fu mu toll nii li ñu war a def mooy nguuru Macky Sall bi nguur buy jaay doole la. nguuru Macky Sall bi nguur goo xamante ne kuy dooleel góor jigéen la góor jigéen nag ñun ci suñu bopp dañ ko dul nangu ci société bi te daf fee bëri nag. jamono ji xale yi xale yu bëri yàqu nañ xale yu bari yàqu nañ te xam nga lan moo indi loolu ji dëkk bu metti xale yi bëgg dërëm moo waral ñuy nekk góor jigéen. amaguñ jot amatuñ jot. amatuñu jot na parent bu war a yar yaa ngi dem jox uti loo dundalee sa njaboot yaa gis mère bu toog boo xam ne lay ne ca taabal mat junni junni boobu muy xaar ca la war a jox añ ca la war a jox reer ca la war a joxe ndékki xale yi góor yi. mbedd mi foo gis ñu nga toog teg seen baraada ak kaas di attaaya déggoo lu ma la dañoo judd retraité xale boo ci gis boo ko laajee âge am da nga naan du moom parce que bi jaaw nañu ñooñu nag ñoo sonn ñoo tay ci giir nguuru Macky Sall bii. léegi affaire euh, borom ñaari tur yi yéen est-ce que jëlu leen ko woon comme ni ngeen ko jëlee woon ci local yi pour campagne ko pour diaboliser euh, Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar. non borom ñaari tur jëlewuñu ko lool parce que li ñu li ñu li am mooy li li li ñu ko li ñu campagner mooy li am ci réew mi. ñëpp gis nañ ni carrément assemblée nationale mënuñu faa dugal pour ñu valider ñu li nga xamante ne ne mooy. borom ñaari tur ñoom ñu bañ ko. te ñoom ñu nekk ci Macky Sall mais naar bu ndaw lu mu lu mu lu mu wax ca berkel la ba la ko déggee. mais gis naa Macky Sall fan yi muy soutenir Idrissa Gana Gueye ci lu jëm ci borom ñaari tur yi. il a intérêt mënut a mënut a ñàkk bañ koo soutenir te soutenir bi sax du lu du lu yaatu gis nga lu tuuti la rek. waxu ci ñàkk pexe. ñàkk pexe de ñàkk pexe kese la. waaw te te te bi sax yaatalu ci dara waxu ci lenn loo xamante ne lu ñu mën a dégg la kooku Idrissa ñoo ngi koy ziar bu baax mënut a ñàkk mel bañ a noonu. kan si eh, suñu suñu joueur boobu nga xamante ne Idrissa Gana Gueye ñoo ngi koy sant bu baax a baax. ndax yow daal da jàpp ngeen ne yéen bu ngeen demoon assemblée euh, di ngeen borom ñaari tur yi. loolu moom wax bu yàqu la ndax yaakaar naa bu ñu fa nekkoon tey bu subaa ñu def ko. Mhm. ñun li askan bi bëgg rek ci la ñuy dox. d' accord léegi lu jëm ci wàllum euh, xëyum ndaw ñi euh, gis nañ ne ba léegi Sénégal euh, problème la comme ni nga ko waxee sànq ndaw ñu baree bari liggéeyuñu loolu lan nga jàpp ne moo waral ba léegi solution solution amagu ci. dañoo lajj ci côté boobu côté boobu dañ cee mënul dara ndax moom moom si boppam moom Macky Sall yaakaar naa ñi mu dénk wàllu woowu ñoo deful li ñuy war a def ndaw Sénégal man de man ami ko la ña ma xamoon ba tey. maa ñoom laa xamaat gisuma ci kenn koo xamante ne nee na ma liggéey damay liggéey kon nag ñoom bu dee nee nañ ñu ngi jox ndaw ñu ñuy liggéey ndaw yooyu fu ñu dëkk ak fu ñu yeewoo est-ce que Sénégal lañ dëkk ñi ñuy jox ñuy liggéey est-ce que Sénégal lañ dëkk est-ce que Sénégal la ñu yeewoo ndax yow mii di ma laaj yow jili yow sa koñ est-ce que gis nga xale boo xamoon ndax mu ngi liggéey man tamit noonu ñi may déglu noonu gis nga nee naa la Sénégalais yi dañoo ne jar kenn mënatu leen nax fu mu toll nii kenn mënatul nax Sénégalais liggéey amu fi xale yi sonn nañu dund bu bu bu baax amatu fi courant yaa ngi ni commencé di xuyit xamaj fu mu toll nii nee naa la nag nguur guy daanu moom yaakaar naa foo laal rek fu mu toll nii. ci réew mi yow yaa jàpp ne day daanu. non nguur gi moom jeexal nañu franchement ñoom am nañu ay projet yoo xam ne ba deux mille ba deux mille trente cinq même bu dul Macky Sall ñoom am nañu projet boobu. ñoom waa benn bokk na waaw ñun yeewi askan bi bu ñu yéegee incha allah ci kàttanu suñu borom dañ koy àggali. 2030 la dañ koy àggali. 2030 24 wala 2035. 2024 kii kii Bastali italien di wax war may jeexal na waaw jeexal na. non même su jeexalee tey moom mag Sall même bu dee présenté wul euh, du ñàkk leader ci Benno Bokk Yaakaar boo xam ne ñoom war nañ ko mën a jiital. amul benn leader bu nekk Benno ci guddi yu toll ni ku mën a jàkkaarloog waa Yewwi Askan Wi amul. yu ñu toll amul benn leader yee Benno Bokk Yaakaar boo xam ne yaa ngi bëgg jàkkaarloo amul amul amul. y' a pas photo. amul ah, mais est ce que tamit yéen doole bi ngeen xalaat yéen waa coalition Yewwi Askan est ce que doole boobu aussi am ngeen ko. doole yàlla doo nga ko yor waaye askan bee ñu bëgg doole yàlla rek a ko yor waaye askanu Sénégal ñoo ñu bëgg ba pare nag bennoon nag wax dëgg yàlla ay xale yu set a fa nekk ku ci mel ni président Déthié Fall liggéey bu rafet bi mu def Yewwi Askan bi téye ko ci ay loxoom. local yi mu liggéey ci liggéey bu rafet ba ñu dóor Macky sàll fépp wallahi nii nii lay demaatee te noonu nag malheureusement ñoom bokkatuñ bokkuñu ci élection yi. d'accord euh, jërëjëf euh, Ami Collé mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM léegi ñu ñëw wax ci euh, li nga xam ne mooy mooy financement yi gis nañ ne président Macky sàll politique am politique sociale am dafa mel ni financement yi ci la bokk bëri na ay kuréel yoo xamante ni dafa jiwoon pour financer ndaw ñi ak jigéen ñi ndax yow gis nga ne loolu stratégie bu baax la wala gis nga ne am na impact. c'est que man financement yooyu ñuy wax ji li xam nga booy joxe financement war nga jox nit ki nga jox ko financement boo xamante ne ne dina ci mën a taxawal dara la mu taxawal di jur dara. Hmm. mais financement yoo xam ne waa gox ba bu ñu ko séddoowee ay ñetti junni ngay am ñeenti junni nga lekk ko ci benn fan mu jeex loolu du financement donc kon finance turu financement fi nekk rek mais financement amul financement amul. mais lu lu tax nga wax loolu. waaw ne dañ ne dañ leen ne 15000 la ñu am ñii ne 20000 nekk. non mais am na ñoo xam plus de cent milliards euh, ay kuréel yu ñu jox plus de cent milliards ñu dem financé ko góor ñeeg euh, jigéen ñi man nga ne stratégie mën naa bañ a baax mais na ñoom nee na jox nañu ko askan bi man xam nga man dama joomi ci biir réew milliards milliards te milliards yi say nopp rek lay romb doo ko teg bët mukk réew mi duñ ci jariñoo mukk gisuñu dara ana financement man ci dama ne ci terrain bi laa nekk damay wàcc ci doomu aadama yi nekk ci terrain bi ak ñoom financement yi déggum dama la financement yoo xam ne bu ko jigéen ñi séddoo ñetti junni ngay am ak ñeenti junni loolu ban financement leen ban turubil moo fi nekk mais financement amu ci moom xëy na moom moom président bu génnee xaalis bi jox ko ñamu koy jox ah xëy na ci seen biir lañ ko yemale. waaw euh, mais Ami Collé ñu wax ci beneen mbir xam nga yéen élection locale yi euh, defoon ngeen ci benn percée gagné ay maires yu bëree bëri mais gis nañu ñu bari aussi ñoo ngi ronqeeku euh, di dem ci Macky Sall ma leen di dalal pale baa ngi mel ni tout le monde audience yi. ñooñu di ronqeeku di dem ñoom dong mooy dem. day mel ni benn saaku gerte rek benn be benn nit ñoom ñooñu yóbbuwuñu kenn xoolal ñoom doo nga dem yóbbuwuñu kenn seeni jabar sax yóbbuwuñu leen ñoom génn ba ñu génnee yeewu askan dafa mel ni dara yënguwul sax amuñu bës amuñu xorom demuñu ñoom ñoom rek a dem yeewu askan bi appareil bu dëgër la ña fa nekkoon di liggéey ñoo ngi fa liggéey ba tey ñooñu dem nag ñoom doo nga dem mais am na ay maire yu fa jóge yan meer la non am na ay maire yu bari yu transhumé waaw maire yooyu dama ne dañoo oyof dafa am ñoo xam ne deretu gor la ñu am amuñu njëg te kenn du leen jënd ñooñu jënd nag nañ dem waaye nag yeewi askan bi toujours ña nekkoon ca yeewi ak militant yu ñu amoon ñoo ngi fi toog ba tey ñoom seen jëmm doo nga dem mais euh, ña fa nekkoon ñoo ngi fa ba tey. mais mais lu jëm ci wàllum transhumance ci Sénégal euh, est-ce que mënuñu woon a dem ba wut benn loi wala loo ci xalaat. man dama jàpp ne loolu bon daal bonte weesuwul loolu nga toog ak say moroomi gor liggéey ak ñoom askan bi wóolu la sa gox wóolu la. bañ a bañ a bañ a votel bennoo ne yow yeewi yow la ñu yaakaar yow la ñu wóolu jox leen sa baat yow ma ñu jox baat nga ni man mii ah bàyyi naa leen fi dem naa ci Macky Sall kooku lan lay nurool kooku jaam la kooku nan lay siggatee ci kanamu askanam ñi ko fi def ñëpp tekkiwuñu dara tekkiwuñu dara te duñu tekki dara te dootuñu tekki dara. kon da nga jàpp ne Macky Sall mënul basé wu ci ay euh, transhumance pour gagner. non non non ba mu ko defee ba tey amu ci résultat bu baax. ba mu ko defee ba tey amu ci résultat bu baax. waaw mais li ñu mujjee waxtaanee nag mooy lu jëm ci euh, assemblée national de qualité yéen yéen a ngi bëgg a dem assemblée nationale mais li ñu gis Sénégal yu bari dañoo dem ba bëggatuñu sax gis euh, yenn xeetu député yi ndax xuloo xeexoo bi bi nga xam ne tey moo am moo am assemblée nationale yéen yan xeetu député euh, ngeen ngeen soxla ak député yi fi nekk nii lan moo ci sa xalaat. ñun de xeetu député yi ñu soxla yeewi askan wi. mooy député bi nga toog day bi nga xam ne day dem assemblée national toogal fa askan bi itte askan bi rek tax koo jóg waxal askan bi du benn baat koo xamante ne ne député boo xam ne day toog naan man diw laa fi toogal président Sall laa fi toogal lu mu wax wax ñun boobu député soxlawuñu ko député bi ñu soxla mooy ki nga xamante ne day toog lu askan bi wax mu dem waxal ko ko jottali ko fële ñun député boobu la ñu soxla te ñun nag ñooñu la ñu am yeewi askan bi ñi nga xamante ne ñoom la ñu yaakaar ba di leen fi teg bis bu ñu toogee assemblée nationale mébétu askan bi ñu ci bëri dina wàññeeku. mais ñu bari loolu la ñu waxoon. mais xam nga nag wax dëgg yàlla député yi nga xamante ne ne mooy député Benno Bokk Yaakaar yi ñoom gis nga leen yëkkateeg wàcce dong lañ nekkee assemblée nationale ñoom. kilifa gi ci kaw day wax ñu ñoom ñëpp orienté wu topp ko donc kon ñun façon député yooyu ñun yàlla bu ñu ko yàlla defal. ñun mais yow yow yow adjointe euh, au maire nga euh, est-ce que def ngeen audit càmbar ngeen la fa Moussa Sy nekkee woon beneen bi tamit am nay maire yu bëri yoo xam ne ñoo ngi def ay recrutement ba président Macky Sall sax doon fi doon dànkaafu ñu bëri jàpp ne euh, Barthélémy Dias lay lay gaarwaale yow adjointe au maire nga est-ce que def ngeen audit foofu ci mair bi ñun mairie bi ñu ngi ci ñu ngi ci audit bi bis bu pare dañ ko dinañ woo presse bi yëpp jébbal leen ko mhm. ndax li ñu fa fekk doy na waar ah bon waaw mairie parcelle lañ fa fekk doy na waar weesuwul que ñu ñu ñu dem ci mairie bi fekkoo fa chaise fekkoo fa table fekkoo fa dara kon mairie parcelle am na loo xam ne bu ñu ko jukkee ba teg ko ci table bi. gi euh, du nekki daray tuuma ay lu leer lañ leen di tegal ci table bi te ñu ngi ci liggéey boobu dañ cee pareegul mais bés bis buñ ci pare ba teg ko ci table bi euh, loxo dina dar gémmiñ. baadu li ma dégg docteur Babacar Diop di ko wax cees dafa mel ni fii moo pire. parcelle waaw. mënuma cee waxagum lu sori parce que dañoo pareegul ci liggéey boobu hmm. mais est-ce ce que instant bi parcelle ndax parcelle dafa am électorat bu euh, am solo électorat bi fi mu nii euh, yéen opposition bi yéen ko gagné yéen waa Yewwi yéen a gagné mairie bi mais est-ce que électorat parcelle euh, ba léegi ci seen loxo la nekk. dañoo yokk parcelle électorat bi dafay yokk ba nga xamante ne ña nekkoon sax bennoo ñu ngi daw si di ñëw si ñun pour te dire ma ma wax la dara bennoo amul dara parcelle. amatul dara parcelle. Moussa si Amadou Amadou Ba. Amadou Ba Amadou Ba fu la nekk bennoo. waaw xaw ma sax ndax bennoo la nekk. d'accord euh, na ne bu élection législative ñëwee di nga ko xam léegi ñu wax ci Barthélémy Diaz euh, président dafa doon gaaruwaale que ne da koy euh, que que yenn nomination yenn recrutement yi. président am na sañ-sañ révoqué ba ma gis yéen ngeen di Ousmane sonk ne bis bu ko révoqué 24 heures ngeen ko ngeen ko may coowul révocation boobu lu sa xalaat. xam nga Barthélemy Dias ndeysaan xale bu ndeyam gërëm xale bu baax ci askanu Sénégal kooku kenn du ko laal te Macky Sall moom bu tëddee na nelaw nga xam tax te mu xam ne juróomi atu Barthélemy Dias yi day mat sëkk ci kàttanu yàlla suñu borom Macky Sall. mais yéen da ngeen wax rek kañ ngeen di jëf. jëf weesuwul ñu dóor leen ba pare jël seeni place fu ñu toogoon yëpp ñu jël ko kon kay ñun ñoo ngi jëf. ñoom ñoo jar ñoom ñoo dese wax ji li maam si Rafal waxoon day bàyyi ba ëllëg suñu borom bi fay wax di bàyyi jëf ñun dañuy jëf de ñoom la ñoom ñoo nekk ci wax ji di wax jëf weesuwul ñu yor seeni milliards yi dul jeex local yi jot ñu dóor leen fu nekk te ñun defuñu fa dërëm. dégg nga Antoine nee na force restera à la loi. kooku moom ay waxam dama ko waxul moom na wax ci li xew ci senegal nit ñi ñuy rey di leen bundu xataal na wax ci loolu. d' accord waaw euh, Amy Collé Nia yow yaa jiite euh, femmes yu PRP euh, ci au niveau national émission bi jeex na ngeen bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu lay sant di la gërëm lan nga bëgg jeexale li ma bëgg jeexalee mooy may sant yàlla bu baax a baax di sant Déthié fale bu baax am nañ président bu mat président waa PRP laay waxal am nañ président bu mat président bu jàmbaare bu loxom set koo xam ne duggul ci dara complot te lépp luñ ko dénkoon ci liggéeyu yeewi askan bi matale na ko dañ koy ñaanal fi mu bëgg àgg ci 2024 ñu gunge ko fa ba mu jël pale bi. ñu lay sant kon bu baax di la gërëm. sëñ Dié maa ngi lay gërëm di la sant. Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw jàll mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokki tey ñu invité woon Ami Collé moom mu nekk présidente femme yi nga xam ne ñoo bokk ci PRP bu Déthié Fall bokk ci coalition Yewwi Askan Wi mbokki ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay